Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk àdduna asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne saa bu ñu jógee yéen a ngi suivre seen nga xamante ni moo di tekk tekk fi nag ba léegi nee naa leen saa rek ñu ngi ci waar bi am na loo xamante ni dootuñ ci sori tey ki ñu seesiwaat nag mu nekk Ameth Ameth nag am na ci lu bari loo xamante ni mu ngi ciy yëngatu bu ñuy yëngatu nag tey fi lañ ko mu ngi ci i mission Ameth mu ngi ci i bagage di ci dóor waar mais balaa boobu dañ koy mu nuyu Ameth maa ngi lay ziar delloo ziar bu wér di la sant di delloo cër bi di la taatagal di la waxal dalal ak jàmm ci bis bi di ñaan yàlla di dugg si bisimilahi génn si si alhamdulilahi tey bi ñu gisee Ameth Ameth tey ji fekk nañ la fii nga xamante ni tey ji mu di Pikine mais tey ji bu buñ bëggee xam kan mooy Ameth Ameth fan la jaar fan la jaar ci jaar jaaram Ameth ba yegg si Ameth benn ndaw la ndaw bi nga xamante ni am na ay passion am na ay bëgg-bëgg am na tamit vision parce que Ameth fu mu jaar bari na bari na bariwul parce que ni di jaay boppam Ameth ndaw la gi nga xamante ni liggéey na agent municipal fële sa West au côté de monsieur le maire Pape Gorgui Ndong ñu koy nuyu au passage du nuyu équipe ba moo fa doon àndal nag doon liggéey ñu liggéey ko liggéey bu mucc ay mais ba sama commune soxlaa damaa daw ñëw sama commune moo ma ñor mooy lépp avant après loolu doon naa yëngatu ci lii nii fi ma fekk nii muy sama place yëngatu naa si ay ati ati at après daal si lay duggaat si yeneen man daal lu ñëw daal ma nekk ci. lu ñëw ma nekk ci. lu ñëw rek nga nekk ci. mais tey jii bu ñu xoolee tey Ameth fi mu dafa jaar ci lu passé ci jaaru jaaram am nga lan lay toog mu jékki-jékki xalaat ko mu metti ko wala mu jékki-jékki xalaat benn affaire rek mu kontaan ci lan la boo toogee di ko fàttali. li ma metti si jaar jaar bari na mais li ma gën a metti lenn la lenn la te wax su jotee faa ñu wax. parce que soo waxul rek kon naafiq nga te ñun li ñooy naafiq nii lañ def direct euh, lu mu met ci jaar-jaar lenn la te doon na li nga xamante ni lu mu touché la te moo tax ma toog ba léegi nii ba nëgër nii yàlla nii ah daw ma meer ba xëyuma muy lenn ñun sécurité dañoo war a jox suñu cër jox ñu suñu àq mooy métier bu gën a metti mais dañ kaa ñàkkal fayda war ñu kaa ñàkkal fayda parce que tey jii nii sa benn tànk moo ngi ci bàmmeel benn baa ngi kaso benn baa nga àdduna parce que métti na métti bépp bi nga xamante ni lu faay bu am rek sécurité la ñuy wax faay bu mënti am rek dañu naan ana sécurité bi ak fépp fu mënti amee tamit dañu naan ana sécurité bi ñi leen di ñaanaat yàlla di leen ñaanaat ci njëkk tamit ngeen delloo ñu cër gi parce que ak lépp mën lu mënti doon ak leader bu mënti doon da ngaa war a jox cër sécurité muy première opportunité mais sécurité mooy dernière opportunité tey ji ni mënu engagé wu si dara toog di xaar la nga engagé wu ñu war la see jox dara ngay toog di xaar mu ñëw déedéet lépp daa war a dajaloo la nga xamante ni muy wàllum koom-koom la wàllum jumtukaay lépp dajaloo nga xam ne doo am benn soxla après nag ñu jàll si leneen. parce que sécurité mooy métier bu sensible bi nga xamante ni dafa doy waar quoi doy waar na bépp doy waar bi nga xamante ni soo amul patience am xol am gëm-gëm am maîtrise doo ko liggéey parce que dinañ la di nga si dinañ la si wax lu ne di nga si dégg lu ne di nga si daj lu ne di nga si gis tamit lu ne parce que ñun liggéey nañ ko des années des années te c'est pas la première fois mais tey jii nii suñ demee ba dara am ñu ne nii dara am na. sans aviser la sécurité kon ya faay te faay su amee rek sécurité bi si boppam dañuy naan ñoom ñoo am faay te alors que du ñoom dañ leen a tegul fañ leen war a teg dañ leen a waxul lañ leen war a wax dañ leen a joxul lañ leen war a jox sécurité bi daal man daal sama gis-gis ak sama bëgg-bëgg mooy ñu jox leen seen cër ak seen gëdd ak seen jumtukaay yu mat sëkk sëkk nga xamante ni sooy dem guerre doo bàyyi sa arme de soo bàyyi sa arme rek yaaree sa boobu te ñun nag dañuy dox si risque ñun commune Djidah Thiaroye Kaw surtout commune Djidah dañuy dox si risque dañuy dox sa arme ah mais mentalité psychologique ak physique la ñuy doxee mais tey jii nii si tey ma nuyuwaale au passage sama grand Ablaye Seyni euh, chef de brigade commune Djidah Thiaroye ma nuyuwaale ñëpp ña fa nekk di ñoom papa ñoom Cheikh Anne ñoom soldat Bama surtout soldat sama copain sama doom nday Euh, ak boo yëpp daal maa ngi su ma limee damay juum ak yaay faalu sécurité bi sooda. tey jii tey jii ñu gis ni tey jii am na am na jafe-jafe yoo xamante ni wax nga ko léegi tey ki nga xamante ni tey yow da nga jël ngir mu sécurité la yaakaar naa ne yow bëgg ku la ak bëgg sa kaaraange yegg fenn fi moo waral nga ne da ngay jël nit di ko fay ngir mu lay sécurité mais bu demee ba ci biir joxante cër mënatu fa am comme ni nga ko waxee da ngay mujjee reculer parce que tey jii am na yoo tey dañ leen di topp di leen suivre. mais bu ñu demee ba gis yow benn occasion bu ndaw mën nañ la cee gàllankoor parce que tey ñoom bu ñu bëggee dara il faut que ñu ne ah sécurité yi kat ñoo fa nekk mais pour ñu yegg fa il faut que ñu gàllankoor sécurité yi. kon léegi problème bi nga xamante yéen a ngi koy gën a am léegi maanaam tey est ce ngeen ne tey ñoom ngeen di sécurité tey ñu taxaw yéen ngeen wax li nga ne moom ngeen soxla tey ñu yëkkati jox leen léegi nag bu fa cër amul tam yéen naka ngeen war a ah mais wax weesuwul si ki nga xamante ni mooy sa njiit nga waxtaan ak moom ñu suñu njiit dañuy waxtaan ak moom te yàgg nañu waxtaan ak moom mais baaxam ak tabeem lépp li nga xamante ni moo ñu dal moo ñu loolu loolu la baaxam ak tabeem baax na bépp baax tabe na bépp tabe yaru na bépp yaru mais su sësee nag sës na gaynde gu déggul jar la ma ne ko gaynde gu déggul jar la mais tey jii nii nga wax wax ka nga war a waxal nga def la nga war a def ah mais tey jii man su la jàppalee sama bopp laa jàppale commune bi commune nga la commune la Modou Gueye ma koy nuyuwaale au passage jàmbaar gaynde bëgg dëkkam bëgg réewam ñun ñu ngi ko si lenn ñun merew ñu ko de entourage am lañ mere entourage na ko xoolaat defaraat ko bu baax parce que tey jii suba wala gannaaw suba ñaana beau jour ko yàlla te yàlla bu mu am su ñëwoon suba la élection nërmeelu bu garaaw dina am nërmeelu bu garaaw dina am te ko yàlla te yàlla bu mu am bi na ko defaraat bu baax a baax su ko defarul ah yuuxu dina jub jub fu ngeen wax ji leer na parce que nit ki yaakaar naa ni ki nga bëgg rek mooy ki ngay toog di ko wax dëgg ki nga bëgg rek mooy ki nga xamante ni saa boo ne ko jàkk rek am loo xamante ni rek boo gisee mu xam ne carrément li ëllëg da koy lool kon da nga ko koy xamal gannaaw lool noonu nag dañuy weesu foofu noonu dugg na ci deuxième partie bi mais kel nga toog ba ne léegi damay delluwaat cosaan di ubbiwaat sama place teg samay matériel di fa jaay tey ji fekk nañ fi ay dugub fekk nañ fi ay basi fekk nañ fi ay ripaas xam-xam boobu nga xamante dafa nekk ci wàllum secret dund boobu noonu ci li dem ci wàllum dund aliment yi sa xel ci la dem ba tax dugg ci domaine bu mel noonu. waaw ci sama xel ci dem ci loolu lenn la muy man na maa bëgg jub sama bàyyi si loolu la ma yar te si loolu laa fekk ma koy sant di ci gërëm nit nag ci la ñu yar fekk la ci doo si def lu dul euh, nekk ci soo si nekkulee rek dafoo li war man sama baay moo ma gën a lool samay waajur sama yi ñoo ma gën a lool surtout jur gi parce que jur gi daa am li nga xamante ni secret la moo ngi ci am na ñi xam ñu bëri xamuñu ko jur gi secret bi si nekk dafa garaaw parce que euh, tey jii ni nga jënd sa jur bàyyi ko sa kër dina la fànkal lu bëri dina la wàññi lu bëri dina la yokkal tamit lu bëri man trois ans yi nii weesu si tabaski jaay ma dama naan jaay xar ay vingt heures laa daan jaay ay ponkal mais daa lu tax jaay ma xar loolu li tax loolu lenn la activités yi ñoo ma ko mayetul woon mais léegi dinaa retrouver waat activités yi na ma daan def bay jaay vingt heures dinaa ko defaat bay jaayaat ay vingt parce que activités yi may ñu ma woon liggéeyu maire bi sama yittey bopp yittey keneen ak keneen nekkoon ci mais léegi dinaa ci nekkaat léegi léegi léegi tey tey ñu gis ni tey danga ne da nga da nekkoon ci ay activités yoo xamante ni ba temps bi mooy la ko woon mais tey bi nga demee tey ji ba récule waat toogaat xalaataat dafa mel ni avantage bi mooy nga arrêté loolu lépp concentré waat ci li nga nekk wala maanaam nit ñi ñoo la doon jël di la dugal ci loo xamante ni comprendre woon mais dem nga ba sa xel yebbi la ci benn affaire nga ëlbateeku ñoo daal carrément man li nga xamante ni mu nekk sama yoon moom laa war ma caaxaanul sàgganuma yonent yàlla mu xam na ni su ma yoree ba tabaski jot man dinaa si gañe ay millions ay millions dinaa ko si gañe toogaale ak moom te nit du ko xam bas mee ne di jaay kafe barki di moo ñaar maa ne ni eh, war a yàlla fu ne lay jógee te weesoogul dinaa si nekkaat léegi man dama daan jaay womat naa xar xar womat naa xar nit dab maag otam ne ma dëggam danga koy jaay ma ne ko jaay moo jour tabaski billahi lazi te su ma neexoon jaay ko dem jënd leneen mais defu ma ko jox moo ma ko gënal fuuf jox moo ko moo solo jur jur gi dafa am solo mais li tax ma bàyyi li ma bàyyi activité yeeg passion yeeg yooyu noonu duggaat si jur gi duggaat toogaat si place bi parce que nit su fa nekkee fa nga xamante ne joxoon ñu la fa gëdd amoo fa respect ah da ngay dellu fa nga jóge woon sooy dem ba xamatoo fa nga jëm. dellul fa nga jóge parce que loolu la loolu lañu suñ maam jàngal te loolu lañ suñ maam yaree parce que euh, nit du tur ñaqam ah nga na ko waaw léegi nañ nañ nañ dem ba après léegi après ñu xool luñ def man xam la laa xam ah mën naa liggéey tour sama ñaq sans pression après ma dem sama yoon toog jàpp sama ñàmbur lay ñëw dina ñëw après yàlla baax na mais nit ñi nañ respecté nit ñi suñ respecté wuñ ñun nit ñi respecté nañ seen bopp ah te ku respecté sa bopp am li nga bëgg man li ma bëgg mooy lii ku ma si jàppale ma dem ku ma si jàppale ma dem ku ma si jàppale ma dem ku ma si macha allah tey jii ñu gis ne tamit ah, bu loolu weesoo da nga nekk ci bërëb boo xamante ni bërëb bu neex la bërëb la bërëb boo xamante ni nit ñi dañuy romb di kap di ree mais sa diggante ak délai bi nga xamante ne tey moo fi nekk mu nekk délégué quartier bi ñu gis ne am na bunt yu bari yoo xamante ne am nga ko sa diggante ak moom secret bunt bi lan la. waaw bi foofu noonu mooy santaat yàlla santaat yàlla di ko ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal yéen gii mu yéen yàlla na attan te bu mu sàq mukk ci ku ko aw moom kilifaam ba fi nekkaan. da daan woo ndaw ñi da leen teg ci wetam ba looloo tax mu am lii ni mu am tey ñu koy ñaanal wér-gu-yaram ak sutura ba yen gii nii mu yendu ci quartier gi quartier dafa diis moo ngi mel ni moo ngi mel ni euh, palais de la république rek moo fi présenté président de la république moo fi représenté maire moo fi représenté préfet kon lu ko waay tegoo rek moom na bës xolom te muñ te xam na ni ndaw la rek te ndaw moom soo nekkee si yoon lu lay day day yomb ma koy ñaanal gudd fan ak wér moom su ma day su may wax si moom sama xol day tooy parce que man damay naan moom moo ma yar man damay naan. mais dafa am dafa am loo xam sa diggante ak moom dafa am benn cër bu sew boo xamante ne dama ko seetlu sa diggante moo moom moom buy wax ak yow da la. non loolu a demee que nee naa kon ki la yar soo ko joxulee cër rek am ah, foofu dara nekkatu fa moom sama kilifa la sama lépp la sama sama sama wéeruwaay la man su ma amee ku may waxal moom laay waxal su ma amee la may defal moom laay defal sama papa sax des fois sax du daf may naan ni sa diggante Aziz ma ne ko sama diggante Aziz nit mënu seetu ku si dugg yaa si def nit dina ñëw ne ma ni délégué nee na lii wëg lii wëg lii barki salaat fa damay xam ne ma xam noppi damay xam ne ne àddunaa demee noonu ku ñuy wax nag ngay lijjante lañ la wax doo nga jëm da ngay da ngay da ngay tardé rek te su neexee yàlla ak yeneen jàmm ngi am rek dinañ àgg fuñ jëm su neexee yàlla moom sa moom moom sama waay la mais sa ëllëg ak sa diggante ak say dëkkandoo ëllëg ak Ahmed ak palaasam Ahmed ci kanam tuuti lan la Ahmed war a créer loo xamante ni ci biir goo xam ñëpp dinañ xam ne kat Ahmed kat bàyyi na le waaye itam bàyyiwul yoonam moom ngi ci beneen yoon lan nga fas yéene créer sa biir gox bi ba nga xam ne kenn ku fi romb la xam ne lii Ahmed moo ko fi waxuma la Modou Gueye de xaar ma benn autorité Modou Gueye man maa ngi numéro musuma xaar saa yi lii laa bëgg de soxla musuma xaaw xaw ma sax bëgg man lu ma waay jox ah man leer na ma ni moo ma jox lii ah dama koy jël joxaat ko askan bi soxla ma si dërëm xaaruma kenn si dara man sama ñaq lu ma may ma jël ko jox askan bi moo ma gënal man ma toog tu ma toog tumuraange parce que askan bi ñoo ma gënal lépp parce que nit ñi soo bëggee soo xewlee nit ñi wuyu si la faaw nga am jàmm nit ñi am jàmm ak askan bi am jàmm ak am di jàmm yi ak dëkkandoo yi man su ma seyoon tey jii nii euh, quartier bi bi mel na mën a mooy doon quartier numéro mais mooy quartier numéro numéro mais mais mais Batou man Madinatu Munawwara war a bi baat boobu noonu fan la jógee baat boobu ak kan moo ko fi créé. loolu jiitu na sama judd. loolu jiitu ma jiitu na sama judd su ma nee di woo ko créé damay fen su ma nee fii la jógee damay fen dama judd fekk ko fi te dégg naa góor gu baax nag moo ko fi wàccee te góor googu yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana te taas nañ si barkeem daal dama ci wax daal te dama sori. du doon sori daal parce que boo ci soree rek sa xol day tooy waaw. suma xoree soree sama xol tooy. Euh, xol sedd na mais Ameth ci kanam tuuti dañuy dugg après moo war leen place bi nga xamante ne Ameth fa la nekk di fa jaay wàllum dund muy ripaas basi ak yooyu nga xamante ni day jëm ci wàllum dund mais Ameth dafa am koo xamante ni dafa taxaw ci kanamu caméra bi tey moom laa bàyyi tey mu gérer caméra bi sa diggante kooku secret bi. non kii sama grand frère la. kii mooy kii mooy docteur. kii mooy docteur. waatu docteur bi. mooy ah mooy ku feebar moo lay faj ci kër gi. feebar moo ci kër gi mu baax lool yaru lool mag a mag raqam ak ñëpp la jàppee ni boppam. alalam mu jël ko jox la ko yow moo ko gënal moom mu aaki moo ko man dama koy fekk mu toog ci biir néegam na ko jàmbaar li laa bëgg du sax wax damay jël dem parce que xam na ni man maa ko yelloo. tey jii nii keneen su mbedd su ñëwoon da koo da naan saa yi mënu ma la kaa jox lu ma lu ma lu ma tey jii nii su ma ko bàyyoon si moom kon tekki na mu yàgg may nuyuwaale sama gerte sama beneen yeneen ñaari grand frère kenn kaa nga dakaar muy Ali Ndiaye Séeri Amina euh, kenn kaa nga Kaolack muy Salif Ndiaye ko koo taaw taaw soo déggee taaw ñu ne taaw mooy mooy yore kër ma koy ñaanal gudd fan. ak wér-gu-yaram ñaanal ko gudd fan wér-gu-yaram ak sutura xam ne taaw metti na lool mais du ci wéet ay raqam a ngi fi nañ boole xoolee rek mu doon benn suñ ko boolee lépp dina baax incha allah. am na dernier kàddu yi ñu tàggatoo ma pare ak yéen war leen place bi. waaw dernier kàddu yi mooy di sant ak gërëm di sant sama baay di sant sama yaay. sant sama baay sant sama yaay man lépp lu ma am sama yaay ma ko a sama baay maa leen di sant bu baax di leen gërëm di nuyuwaale tamit au passage sama yaay sama xarit sama xol Adja Seynabou Meng démb laa fa jógee da doon ganale si daa demoon bayti laay ziyaare yaaru suro la ñu ngi lay ziyaar bu baax a baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal lépp lu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu yàlla bu doon dara nul am na ñi xam ñoo ngi fay dem mais touriste lañ fay def am nañ am na ñi nga xam ñoo ngi fay dem mais touriste lañ fay def mais moom bosam niilul barki leeru alxuraan ñi ma naa jàpp ba seetlu teg sama loxo si kaamil na bosam niilul doomam Fatima yàlla na jannatu Dubaay yàlla na doon entreprise ba mu jël Sénégal gi yëpp dugal leen parce que xolam set na yiw na yaatu na bëgg na nit ñëpp la jàppee ni boppam te janatu moom après dinaa la woon ay dinaa dinaa la yebal ci moom sama raq la te yàlla baax na macha allah kontaan nañ ci yéen di nuyu suñu caméraman kooku moom xam naa ne docteur lañ koy wax man nag moom xam naa ne moom fu ma fu ma tawatee rek dinaa ko dem wëri ji waaye daal yàlla yéex kon nag gars yi lii la leen indiloon seen émission tekki fii doomu adama fa nga nekk gëmal sa bopp xam ne bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw lu doomu adama yëpp di def ngir am tukki neex na dëgg la mais fa nga dem dafa immigré ji yow am na loo xam ne boo ko créé fii Sénégal fii yàlla suñu borom suturaal la nga nekk ci nekk ci millions yi nga nar a jël di ko passé di dem bitim réew millions yooyu boo ko tegee fii nii def teg sa benn table loo ci teg rek yàlla suñu borom mën na la koo dimbali nga nekk ci kon am na loo xamante ni tam bëgguñu see sori tey li lañ leen indiloon ak Ameth waaw mais baa nga ni trois ans ah yor lii nga ne ñetti trois ans laa yor lii ah si doon taaba taaba ah ba takk si soxna ñetti at yi si laa ba takk si soxna sama soxnaa ngi si biir Mariama Cissé Cissé ngaari ngel meew ah, ku mu mayul meew du naan ma nuyu waale waa Casamance bu baax samay goro maa ngi leen di nuyu ah. ne leen dinaa ñëw léegi nag seen doom namm na leen te dina ñëw te su ñëwee ne ñu xam ne ñëw naa. macha su ma ñëwee. waaw ah. xam ne ñëw naa. bu xam boo ñëw daal ñu xam ne daanaan bi daal ñëw jeex na. alhamdulilah kon sama gaay mel na moo tudd ma dugg ci biir war leen amet naka lay peese ak naka lay jaaye gars yi loolu laa leen di wan tuuti jaajëfal ak tëj émission tekki fi tekki fi doomu adama gëmm sa bopp sa réew. amal gëm-gëm boo xamante ne boo ko fa teg yaay su mburam suturaal la nga nekk ci yore million ne damay dagg billet ngir dem États-Unis war a feneen dëgg la boo ko amee demal mais boo ko amee mu leer loolu li am nga ko te boo ko passé boo demee commencé waat nekkal fi nga war a nekk gëm sa bopp parce que loolu mooy àdduna émission tekk fi tey li lañ leen indiloon ak Ameth émission bi nga xamante ne mooy tekk fi kon man ak yéen ma dugg tuuti leen kon Ameth duggal ci biir ma fekk la fa ma ñëw wan